Mahamadul Amin xam naa euh, damay jëkk jaale lislaam mm-hmm. ak yoon wi ñaari jàmbaare lislaam yoo xam ne mm-hmm. dañ fee dañ fee jóge ci weer wii daanaka mm-hmm. ci jamonoy tabaski rek nekkoon ci ñaari kër ci kër yu mag yi ci yoon wi kenn ki mooy sëñ Abdullahi yàllaay buur nekkoon ci bopp kër Maam Jaara ak sëriñ Moustapha sëriñ Massamba nekkoon ca bopp kër ga moom itam li tax mën naa cee boole soxna Daba Mbacke mi nga xam ne sax moo desoon ci doom bi maam Cheikh Anta yi moom itam ci si leen jiitu tuuti rek la wuy ji boroomam ñu koy siyaare waa kër sëñ ak sëñ Abdoulahi nga xam ne fa la doon liggéey ñoom ñaar ñoo ñu ma tudd itam sëñ Abdoulahi sëñ Moustapha de dañu fa dañuy dalal xel ci yoon wi ndax kenn ku ne ci ñoom penc ma nga yilifoon da nga faa bàyyi naalub jumaa juma joo xam ne budget ba ëpp na milliard te kenn ku ci bi mu fiy jógee bàyyi nga fi loo xam ne buñ ko ca defee mu sori mu sori lool bu dee sëñ Abdoulahi jumaa ji mu tàmbale woon ci Mbàkke budget bi milliard bu teg la woon ba gis ngeen ne lañ ca bokk na ca lam ca mujj def mooy àddi yooyu Cheikh Mountakha joxe woon gannaaw bu ñu waree nga xam ne lépp lu ca maçon war a def ba bunt yi ba mu tëjee la mën las ne ba naan noppi na bàyyi na ko fi nga xam ne kon la ca bu juróom-ñeenti téeméeri million def na ko ci te li tax mu nekk misaal mooy moom moom ci boppam ba muy ñëw Mbàkke yi nekk xalifa Maam Mor Jaara këram jóge ca Misra Misra gii néegub kaskaar ba mu fa bàyyi woon dara dolli koo ci ba fi mu ne nii nga ne jumaay milliard ak màngam ji mu daanaka mu àgg bu bu bu fekkoon daa génn këram di ñibbi misra gam jóge woon. Mhm. néegu kaaskaare boobu ci lay duggaat. Mhm. kon nag dafa mel ne lañ doon tëggee Cheikh Mahamadul Fadal. Mhm. bi jumaa ji àggee. mu ne jumaa ji toll nii mu tabax ko. dëkk ci néegu baraag ak yu demee noonu. lu ma lu jege juróom benn fukki at gannaaw bi ñu mën a tàggee lu ko nuru lu ko jege kenn ci njabootu sëñ Tuubaa loolu li muy wane mooy ndoonool sëñ Tuubaa li mu fi bàyyi te mooy ndoonool lislaam daf ne woon noonu lislaam laa fi bàyyi ci lañ may donn waaye de suma donn ci xooy xëy àdduna bi xidmatil quraani wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawruthi sëñ Moustapha Massa mooy lu mel noonu la ñu mën a wax ci ñoom moom ñoom moom kon kon ndoona li laalul suuf te du laal suuf incha allah ni ko Cheikh Mountakha di ni ko Cheikh Mountakha faral di waxee bu ko defee nag noonu ñëpp gis nañ li li li xew ci àdduna bi mbas mi daj àdduna di musiba mu rëy moo xam ne mu ngi wàcc ci kaw daanaka ñëpp bés bu ne daanaka ñu tàggee la kenn wala mbooloo bu ko defee nag dañuy jëkk mm, ñaan sàkku ci sëñ ci boppam mu tiinul ñu ci boroomam di ko jaarale ci kàddu sëñ bay jaxate yooyu mu defoon mm-hmm. sëñ bay jaxate kenn ëpp ko tawxiid mm-hmm. kenn gënu koo gëm yàlla waaye ba lu mel nii xawee di mbas lu mel nii mu demee rek wala du ko raw mm-hmm. dafa yëkkate woon kàddoom sàkku ci sëñ Tuubaa mu tiinuñu woon ko ne sunu doyee deeg sunu ñàkk solo bum bum bu mu tee nga ñaanal ñu ak mucc daal di tàmbalee xasida ga ne sagam gaaya bay daa la xal seeta añ ku xam gaa yi dul bay fu ñu lekk kon mm-hmm. ne ko bu fekkee ne yow Bamba may yii nga yor ñi gën rek ka ciy jot nangay def ñi bon te yaa yor cërub gaa yi baax ak yi bon mm-hmm. faral jox ma jox ñëpp jox ñi fi man mm-hmm. te balaa kenn am lëf ci man dafay mel ne man bu yeboo ñibbi ko mm-hmm. ndeyow doomi nit dootu mel nii nga mel te gëñ naa ne wax ji sore naa kefel ne ko waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jee waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jee tinul ñëpp yow boo tinu yàlla tin boo ab sàmm nee cell jur gépp jee bu jur gépp jeexee lu muy sàmm ko kon noo ngi jaarat ci kàddu yooyu ci làmmiñu julli yeeg murid yëpp di ko sàkkoo ci Cheikhul Khadim bu ko defee ndigal li nga xam ne jóg na ndigal moom bu jógee ci murid jëfee rek moo ca war a topp ndax dañoo yeesalu jaayante ci moom mi joxe ndigal mun Mountakha jaayante gi mooy gu jëkk ga rek diggante yonente bu bu tedd ak saxaaba ya mooy dox ba agsi ci ñun la sañëpp laa waxoon man awfaa bi ahdihi ji rek ca la ca la ca la ñu duggee sunu borom dafa jënd ci jullit ñëpp seen alal ak seeni bakkan fayee leen aljanna kon sañëpp laa teg ca ne nit ki lu mu jaay te yaakaar a jot ca njëg ga moomatu ko sunu lépp Sëñ Tuubaa ko moom kon ndigalam loolu bu jógee jëfe moonu ca war waaye nag ci kaw jàngat mën nañoo jël ndigalam loolu teg ko ci misaanu sharia natt ko ci danañ gis ne ndigal lu diis la lu am poids poids bu rëy bu muy peese la bu ko defee jàngat googu danañu dolli yàqiin dana la dolli yàqiin ba mën nañoo gën a mën a jariñu ci ndigalu sëñ bi ni nga ko waxe ni nga ko waxe léegi ndigal li itam bu jógee xat-xati àdduna ak fi mu tolloog ndigal moom bu jógee jërut xalaat mm-hmm. ndigal du ànd ak lor sëñ Tuubaa am na fu mu koy nattali naa bi mu nekk ci géej gi dafa am bés kilifa tubaab ci kilifa yu mag yi war a ñëw ci dëkk ba mu nekk nee na ñu tàmbali di defar mbedd yi di ko setal di samp drapeau yi ngir di ko séentu ay fan nee na bi ñëwee man la jëkk a laaj jaawal si ci sama nekk ñu andi ko mu nuyu ma jaar ci sama tur jaar ko war nee na bi ma joxee loxo ba may nuyu ba ma tàllal sama loxo ba koy jox ba jox ko kàddu jóge ci kaw asamaan mhm. ne ma yaa ayyuha alladina amanu mhm. innama almushrikuuna najas man ko ne yéefar yi sobe lañ wareesu leen a mhm. waru jox loxo ci maanaam nee na ma daal ci sama loxo bif ko bif bu ba mu xaw a terter yi moom kilifa tubaab boobu nee na ma wax ke ko doon interprète ne ko nee ko man bokkuma ci ñi koy bañ wala bokkuma ci ñi ko génne diw rek bokk ci mbokkam ci waa senegal moo ma santoon bu ma ñëwee naa ko ko nuyul feeñal ko ak cofeelam loolu rek moo ma indi nee na sëñ bi nee na ma ne ko nee ko man li ma def defuma ko ngir jafe ne damaa nooma mm-hmm. nee na ba mu dalee nag ñu jox ma ndigal nañ ma joxe woon ndigal bu ko nuyu joxaat ma ndigal na ma teral ko mm-hmm. nee na ma wut mburu ci seen mburu yu saf suukar yu neex yooyu yu ci bari yónnee ko mu bég ca lool sëñ bi teg ca ne mm-hmm. bu fekkoon kuy jéem a feeñam feeñalu njàmbaar la waaye aw wala aw fit du ci génn waaye laa darara maa al idni loolu la ca teg <laughs> ndigal bu jógee moom lu metti metti lor du ca juddu kon nañu dalal suñu xel ci mm-hmm. ndigal ndigalam lii ndigal li ñaar la sëñ sëñ Lamin mm-hmm. li mu joxe ndigal jàng xasida mm-hmm. mooy xasida mooy zikir kenn mënu koo génne ci lislaam pajares mooy itaam dégg laa dégg naa la nga ne daf ne ay téeméeri téeméeri téeméeri nag kon zikar la joxe ndigal ak joxew ñam léegi ñaar yooyu buñ ko jàngatee ci diine bu dee zikar moom alquran la mu wax mooy moo gën a màgg lépp sëñ Tuubaa naatal na ko ci téere ba mhm. amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru nee na bu dee zikar tudd yàlla mhm. moo gën a màgg lépp mhm. lépp lu murit di bareel ngir jege ko boroomam amee ko ngërëmam nee na zikar moo ko gën a moo jëfee te kaw ne wa kullu man saalani fa lil jawaab képp ku ma laaj am naa tontu mooy qabla wala tujaadilu ahlal kitaab mooy baadee jiitu wala tujaadilu xis boobu muy sunu boroom dafa ne wala dikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a màgg borom xam-xam yi wute nañ ci wala dikrullahi akbar am na ñu ne lañ ca jublu mooy tudd yàlla ci biirug julli am ñu ne déedéet lam ci jublu mooy tudd yàlla ak jaam bi yàlla tudd gi muy tudd jaam bi boo ko tuddee moo gën a màgg jaam bi ko tudd gi ko jaam bi tudd am ñu ne waxi kaw ja rek lay tekki tudd yàlla gën a màgg lépp day mel loolu la sëñ Tuubaa saxal fii tudd yàlla googu sëñ Muntaxa woote nag ca mooy jàng xasida tudd yàlla doy na ca sëkk aw yiw li sunu borom ne fadkuruni adkurkum tudd leen ma ma tudd leen ku ñu wax Saïd ibnu Jubayr ci taabiyoon yi la bokkoon dafa fiiri loolu ne sunu borom li mu bëgg xam ne tudd leen ma fàttaliku leen maanaa ci xéewal yi ak ci dundug yolob yi fi shiddati war raxaa bu ko defee azkurukum fi shiddati wal balaa fu ngeen tollee ca tartar yeeg balaa yi mhm. ma tudd leen fàttaliku leen génne leen ca te loolu ci lañ toll fi mu ne nii tudd yàlla moom sax na ci alquran ne day génn nit ci ci xat-xat tudd yàlla mhm. loolu gis nga sayiduna yunus alayhi salaam ba duggee ca géej ga jën wa wan na ko wan na ko ci biir géej gi sunu borom daf ne fa lawla annahu kaana min al musabbihin la labita fi batnihi ila yawmi yubaatu mais yunus moomu bu fekkut bokkutoon ci ñiy sàbbaale yàlla te mooy ñiy tudd yàlla ca biir jën wa lay sax des ca ba kero bis penc ñuy dekkal ñuy dekkal nit ñi te te boobu moom ke ke foog kenn ku ne fa nga nekkoon da nga fa jógee ndax ñëpp ay tawee bis ba kon tudd yàlla moo ko génn defe naa xat-xat mënut a weesum ne ci biir jën wu ci biir géej tudd yàlla ko fa génne kon lii sëñ mun taxaw wootee mën naa génne ñëpp ci xat-xat yooyu la ca topp mooy joxewu ñam dane nañ moom ci boppam mu tàmbalil ko boppam joxe li mu xaarafi Tuuba vingt-huit ci nag joxe ko ci bari goy ceeb bu ko defee joxewu ñam woowu nag moom itam gis nañ buñ delloo ci alquran suratul insaan sunu borom bari na xéewal yu mu fay digg digge digge ëllëg waaye ñam koy jox kenn jiituwu ci ñay ñay ña doon joxew ñam wa yut'imuuna ta'aam gis nga ci ca suratul balad borom ma wax ne am na gàllankoor yoo xam ne day tee nit ki dugg aljana ëllëg waaye am na yum tudd ne mënees na koo jéggee gàllankoor yooya wa maa adraaka mal aqaba fakku raqaba aw itaamun fi yawmin di masxaba nee na bokk na ci jege gàllankoor yi ba mën a dugg aljanna joxewu ñam ci bis buñ ko soxlaa kon joxewu ñam lu lu lu lu màggala ca lislaam yonent bi waxoon na ca xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la xadis bu wér ne wattandiku leen sawara lépp lu leen ci tee dem nangeen ngeen ko def donte ci xaaju tàndarma la xaritu tàndarma xaar tàndarma nga jox ko koo soxla rek mën nga ci mucc ci sa war a dugg aljanna ittaqu naara walaw bi shiqqi bi shiqqi tamra loolu la waxoon kon joxew ñam noonu la noonu la dem na ba ne xayaarukum man a man at'ama ta'am ki gën ci yéen mooy kii mhm. ki gën a mën a joxew ñam mhm. gis nga euh, kooku nga xam ne xaj bu mar rek mhm. ba bu marut bu naanut mën a loru la xettali woon ab xaj sunu borom jéggal ko ci saxaaba yi ba ba ba ko yonante bi waxee dañ na ko wa inna lana fil mi la ajran ba ci bàyyi ma yi sax mën nañ cee jële ab yool mu ne leen lépp luy boroomu res wuy tooy rek ab yool a nga ca maanaam loo amee bakkan rek mhm. sun boroom mën a la caa defal ab yool kon muy dikar muy joxewu ñam ñaari tal mooy ndigal li mm. lu ci ne rek la na ci bi yool kenn xamul lu mu toll la ca na ca lu mën a génn ci nit ci xat-xat kenn kenn sunu borom rek mu xam waaye nag lépp ni nga ko waxee léegi mm-hmm. na tegu ci nañu fas yéene jëfe ndigalam li rek ngir yàlla ngir yàlla dañuy wax ne mm-hmm. ngir sunu borom nangu nangu jëf mm-hmm. faw ñaar yi mënu caa ñàkk jëf jën na dëpp ak sunna sunna mooy yoon wi yàlla rëdd yonent bi leeral ko na dëppoog bu bu mu génn sunna te na nga ko def ngir yàlla ñaar yooyu ñaar yooyu munta ñàkk ci ci ci ci ci jëf la la rawatina lu jëm ci xasaay di sëñ Tuubaa yi nga xam ne dafa wax moom ne xasaay day jëmut ci lu dul jëmmi yàlla ak liggéeyal yonante bi lam yanxu xatt yi xayra wa xayra xidmati rasulillaahi loolu la sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa wax muy euh, bunt bu am solo xam naa sëñ Abdou dinañ ñëwaat foofu ci xasida yi ndax yaa ngi ubbi bunt boo xam ne euh, tey lii nga indi xam nañ ne sëriñ bi euh, ginnaaw bu ñu ko joxee suñu bopp yaakaar ko rafet njortu ci moom xam nañ ne lépp lu mu digle def nga njëriñ rek moo ci bàyyi ko waaye nag ni nga def lu am solo la leeral nit ñi delluwaayu loolu ci sharia leeral ko delluwaayam ci àqiqa ba nit ki xam ne ñaar yooyu rek ñoo fi nekk te nattukaay boo ko boo ko ci jël gis ne mën a si cee jëriñu Euh, nga tàmbali ci njëriñu xaside yi sëñ euh, Ibra Fall euh, balaa maa ñëwaat ci sëñ abu mu tàmbali tudd njëriñu xaside yi xaside yi nag wax na baat bu am solo muy zikr te zikr di benn baat boo xam ne bu ne ñumm la waaye boo ko tasaare woon maanaa yu bëree bëri mën cee génn ci biir zikr nag ñu gis ci lu am solo muy ñaan ñaan di loo xam ne suñu borom digle na ko digal ko jaam ñi bu jàmm amee bu xat-xat amee mu mel ni ci tënk daal jafeyaana situation bu nit di toll te ñaan mënu ko ci génne te sëriñ bi nag mel na ni suñu boroom eh, ci coobareem defal na ko